ñu ngi leen di nuyu ku nekk di leen sant di leen gërëm di leen ñaan ngeen abone si suñu yéen suñu chaîne YouTube bi nga xamante ni mooy Albishara TV kon mbokk yi bu ko defee dañoo fas yéene waxtaan ak yéen ci benn yonente ci yonente yi nga xamante ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala yónni na leen woon ki nga xamante ne mooy yonente yàlla Shuayb yonente yàlla mu nekkoon ki nga xamante ni mën ñi nga xamante ne ñooy gëstu li nga xamante mooy taarix ñoom ñëpp juboo si juboo nañ ne ci ñeent yonent yi nga xamante ne ay arab lañu woon moom si la bokk waaye ñeenti yonent yi nga xam ne ay arab lañu woon ci si njëkk moo nekkoon xuut keneen ki si topp mooy saalix ki ci topp mooy Shuayb mi nga xamante ne moom lañ fa yéene waxtaan ak yéen ci kanam keneen ki si toppaat mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon mbokk yi Shuayb moomu am na ñu ne mu ngi dëkkoon fi nga xamante ne mooy Cham am na sax ñu naan mu ngi dëkkoon fi nga xamante ne mooy Yaman waaye ak lu mënti xew rek ci boor yooyu noonu la dëkk te xam naa incha allah dinañ ci dugg bu baax a baax waaye moom ki nga xamante ne mooy Chouaïb yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi koy yónni woon ci nga xamante ne ñooy waa Madiyen kon mun nañ ne ki nga xamante ne mooy Chouaïb mu ngi dëkkoon fi nga xamante ne mooy Madiyen waaye nee nañ Madiane dëkk boobu tur bi nga xam ne moom ki nga xam ne mu lañ tuddi dëkk bi mooy nekk ki nga xamante ne mooy Madiane doomu Ibrahima alayhi salaam kon ki nga xamante ne mooy Shuayb ñoo ngi ko yónni woon ci waa Madiane waaye waa Madiane nag ñoom ay commerçant lañu woon maanaam ay jaaykat lañu woon seen dëkk bi sax mun nañ wax ne ab carrefour la woon ndax mu ngi nekkoon ci diggante Cham ak Yemen ak Hijaz li nit ñi dañ daan jugee fi nga xam ne mooy Hijaas nga xam ne mooy Arabie Saoudi di fa jënd see di fa jaay see itam am xamante ni aussi dañuy jugee fi nga xamante ne mooy Cham di fa jënd see di jaay see tamit ni ko noonu tamit noonu la ñuy jugee fi nga xam ne mooy Yemen di fa jënd see di fa jaay see tamit kon daal mun nañu wax ne Madiane moo nekkoon li nga xamante ne mooy capital commercial bi waaye ñu waa Madiane nekkuñu woon ñoo xamante ne ñu gëm yàlla lañu woon dañ daan jaamu xërëm weddi seen borom di lekk li nga xamante ne mooy alalu nit yi di lekk riba di def li nga xamante ne mooy li leen neex di xool ñi nga xamante ne ñoo leen ëpp doole ñu koy ñu leen di won seen doole waaye ñoom waa Madyan buñ daan jaay ñi nga xamante ne ñooy daan ñëw si ñoom di jënd si dañ daan wàññi li nga xamante ni moom la ñuy pêché ba bu waroon a joxe lu bari day joxe lu tuuti lool niki noonu tamit bu dee ñoom ñoo war a jënd dañ daan yokk li nga xamante ne moom lañ daan nattee ba nga xamante ni bu waroon a joxe lu ndaw sax dina joxe lu bari ni ko noonu tamit buñ daan def li nga xamante ne mooy peese dañ daan yàq bascule bi nga xamante ne moom la ñu daan peese bu waroon a joxe lu baree bari day joxe lu tuuti noonu tamit bu ñu waraan a jënd ñoom dañ daan defaraat li nga xam ne mooy bascule bi ba muy joxe lu baree bari bari waaye ñoom waa Madiène ba nit nga xamante ne noonu la ñuy dikkee yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ngi leen yónnee benn yonent boo xamante ne ñoom ñëpp nangu woon nañ ne nit ku laabir la te nit ku yiw la itam nit ku xamante ne ñëpp nanguñ ne nit ku wóor la kooku moo nekk nga xamante ne mooy Shuayb waaye moom Shuayb bu moomu ba mu ñëwee ci ñi nga xamante ne ñooy waa Madyan li mu leen wax mooy jaamu leen yàlla te bàyyi jaamu li nga xamante ne mooy ay xërëm jaamu ji leen yàlla te bàyyi jaamu xërëm ndax ñoom waa Madiyen ay xërëm lañ daan jaamu waaye mu ne leen yàlla xamal na ma waaye man de xamaluma leen keneen ku dul seen yàlla bi nga xamante ne moo leen sàkk sàkk ma man mii di wax ak yéen waaye moom Shuayb bu mu leen di digal si ngir ñu maandu di leen tere ngir ñu bàyyi li nga xamante ne mooy riba bi ñuy lekk ak di jaay nit yi doole ak di lekk alalu nit yi su lu dul lu leen neex mu ne leen mankat nekkuma ki nga xamante ne ab policier la wala sax ab gendarme boo xamante ne damaa ñëw ngir di leen contrôler wala ma ñëw sax ngir di leen tere dara dara dara loo xamante ne sama xalaatu bopp la waaye man daal yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ma ngir ma laaye biir leen xamal leen li nga xamante ne moom la bëgg ngeen def ko waaye moom Chouaïbou ba mu waxee loolu avant moo eggale li nga xamante ni mu ngi koy wax waa Marien commencé di ko yéjji di ko reetaan di ko ñàkkal fayda ak di ko ñàkkal kersa di ko di ko ñàkkal fayda si li nga xamante ni moo ngi koy wax waaye moom Chouaïb bu taxul ba tey mu bàyyi di leen woo ñu dem nag ba commencé di ko wax naan ko ñun de xam nañ ni sa julli yi bari yi ngay def ak sa ñaan bu bari bii ak sa yàlla bi nga xamante ne moo lay wax moo la digal nga ñëw bëgguñoo teraloo li nga xamante ne mooy sunu yi moom lañ fi bàyyee woon te nga xamante ne mooy sunu xërëm yi chong bu ne leen man de bañ ma wala sax bëgg a ak man bu mu tax ngeen yóbbu seen bopp ci li nga xamante ne mooy ak kéefër su ma sañoon ngeen demaat dellu si sunu boroom ngeen tuubal ko ngir mu jéggal leen ndax yàlla kat aji jéggalaakoon la waaye ñoom Chouaïbou ba mu leen waxee loolu ñu commencé di gis seen bopp waaye teewul ba tey saa yu ñu xëyee Chouaïbou loolu lay dëkkal seeni nopp ñu dem nag ba commencé sonn ci li nga xamante ne mooy waxi Chouaïbou yi ñu daan ne ko ñun de bu dul woon mbokk gi nga xamante ne bokk nañ ko ak yow kon ba tey boole nañ nag ak suñuy xaj ñu génn la ci say nit wala sax ñu rey la waaye ñoo ngi seet ci li nga xamante ne mooy mbokk gi ñu bokk Souhaïbou ne leen ndax mbokk gi bokk ak yéen moo gën a foor yàlla ji nga xamante ni moom laa leen woo te yàlla jooju moo nekk li nga xamante ni mooy ki leen bind waaye ba leen Souhaïbou waxee loolu ñu commencé kat di gën a gis seen bopp saa yu ñu xëyee ñu ne ko waaye yow Souhaïbou ba ba léegi yaa ngi wax ak ñun naan sama yàlla bi lii sama yàlla bi laa maa ngi dégg ngay ñoo ngi ñoo ngi dégg ngay wax li nga xamante ne muy mbugal gi war a jóge sa yàlla ana sa yàlla jooju la ñuy mbugal ndax mu xam ndax ñu xam li nga xam ne mën na ko Shuayb ne leen man kat yàlla suñu borom subhanahu wa bu leen nu nekkul si man lay jóge waaye yàlla suñu borom subhanahu wa moom moo yor ay mbugalam te saa yu ko soobee mu def ko waaye ñoom waa Madiyen ba ñu weexee loolu ki nga xamante ne mooy Shuayb bu ñu toog ak diir jékki-jékki mel ni mbir dafa jóge ci kaw asamaan jékki-jékki waa Madiyen commencé di dégg ay yëngu-yëngu yu jóge ci asamaan di riir mel ne seen nopp yi dañoo mujjee tëx jékki-jékki mel ne rek lu ñu ndërmeel ba ñoom ñëpp fa lañ jaaree ñàkk seen bakkan ba mu des ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak ki nga xamante ne mooy Shuayb alayhi salaam kon mun nañu wax ne yonent yàlla Shuayb bu foofu noonu la mujjee ak waa ñi nga xamante ne ñooy waa ñi nga xamante ne moom Chouaïb foofu noonu la nekkoon foofu noonu la dëkkoon waaye ba loolu amee taxul itam ba tey ki nga xamante ne mooy Chouaïb histoire am jeex ndax Chouaïb histoire am xaw wuute lool ñi nga xamante ne mooy yeneen yonent yi ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am ko yónnee si waa Madiyen ba nga xamante ne mission am jeex na foofu yàlla suñu borom da ko yónniwaat ci beneen mission bi nga xamante ne moo ngi ko yónni si ñi nga xamante ne ñooy waa asxaabul aykat kon xam naa dañuy yem ak yéen fii di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam naa bu ñëwaatee beneen yoon incha allah dinañ ñëw ci ñi nga xamante ne mooy beneen ñaareelu yónni bi nga xam te yàlla subhaanahu wa taala yónni ni ko ki nga xamante ne mooy Shuayb bu ci waa asxaabul ayka kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين حرم يامين mbokk jullit yi mbokk déglukat yi ak mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi suivre suñu chaîne YouTube bii TV ginnaaw ba ñu sante yàlla subhanahu wa taala jullit ci yonent bi julli ci ay ñoñam ak ay saxaabaam ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci ki nga xamante ne mooy suñu yonente yàlla Shuayb ci première risaala bi nga xamante ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala yónni woon na ko mu nekkoon ñi nga xamante ne ñooy waa Madiyen ak moom ki nga xamante ne mooy Shuayb alayhi salaam fa mu mujjee ak ñoom kon bu ko defee dañoo fas yéene ñëwaat ak yéen ci ki nga xamante ne mooy ñaareelu yónnee bi nga xamante ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala yónnee na ko ki nga xamante ne mooy Shuaybu alayhi salaam dama yónnee ko si ñi nga xamante ne ñooy waa asxaabul ayka kon asxaabul ayka boo ko déggee ayka mooy nekk li nga xamante ne mooy gol ba gol ba maanaam mooy foo xamante ne ay garab yu bari ñoo fa nekk kon waa ayka ñoom ñoo dëkkoon fi nga xamante ne seen garab bi dafa bari woon lool sëq lool ba li nga xamante ne mooy garab yi dañ daan dem bay lëmasoo ci fi nga xamante ne mooy ci kaw ñu fa dëkkoon nag ñoom lañ daan woowee waa golba maanaam waa asxaabul ayka waaye foofu nga xamante ne mooy waa asxaabul ayka ñoom seen dëkk bi sorewul woon ak fi nga xamante ne mooy Madiyen gi nga xamante ne fa lañ yónni woon première yónni bi nga xam ne yàlla suñu borom yónni ko ki nga xamante ne mooy Chouaïb waaye ñoom garab yi ñu dëkkoon da daan bari ay meññeen lool waaye waa gol ba yàlla suñu borom mu fa yónni Chouaïb bu muy nekk deuxième yónneen bi nga xamante ni yàlla suñu borom yónni ko Chouaïb waaye Chouaïb bu ba mu ñëwee ci ñi nga xamante ni mooy waa Golba daf leen neen man de yàlla moo ma yónni si yéen ngir ma jubal leen jàngal leen ngeen topp ko moom suñu borom subhanahu wa man nit laa ku ñu wóolu man duma wor duma wurul wuruñ nekkuma dara nag lu dul ndaw lu ñu yónni rek man daal nekkuma dara lu dul ab ndaw boo xamante ne yàlla sunu boroom subhanahu wa taala moo ma yónni ngir ma jubal leen waaye waaye topp leen ma ñu bokk topp yàlla sunu borom subhanahu wa loolu moo leen di musal ëllëg ci mbugalu yàlla sunu boroom mi nga xamante ne buur bu màgg la waaye man kat soxlawuma kenn ku ma fay si yéen ndax sama faykat maa ngi koy wékk ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne moo ma yónni si man daal li ma leen di digal mooy jub bu leen yàq li nga xamante ne mooy droit wu nit yi te bu leen yàq suuf bi te bu leen tooñ te bu leen jeng te ni ngeen maytu di tooñ ñi nga xamante ne yéen leen ëpp doole waaye ndaxte li nga xamante ne mooy li ma leen di digal boo leen ko defee kan di ngeen mucc ngeen mucc ci li nga xamante ne mooy mbugalu suñu boroom bu ëllëgee waaye moom Shuayb bu ba leen waxee loolu wax ay kat ñoo ngi koy araftu di ko tontu ñu naan ko yow xanaa dañ la njabar ba nga dof mm, yow xanaa doo kenn rek ci ñun wala sax xanaa doo ku kenn ci nga xamante ni dafa dëkk ci li nga xamante ni mooy ci si dëkk bi ñu naan ko sax xanaa doo mbindeef comme ñun ni ñu nekkee ay mbindéef ñun daal soo bëggee dégg-dëgg gëmuñ la dangay def li nga xamante ni mooy fen waaye ndaxte bu dee li ngay wax dëgg la waxal sa yàlla bi nga xamante ni nee nga moo la yónni na wàccee si ñun mbugal ndaxte nee moom moo xam lépp te moo moom lépp ki nga xamante ne mooy songoy bu tontu leen comme la mu tontu woon ñi nga xamante ne ñooy waa Madiyan mu ne leen mankat mbugal de nekkul ci man lay jugee ndaxte man jaam laa comme yéen mbindeef laa itam comme yéen yàlla suñ borom moo muy yónni te xam na li nga yelloo ci ay mbugal te xam na seeni mbugal itam nan la toll kon yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lay neex rek mu mbugal leen waaye mel na yàlla suñu borom dana xaar ki nga xamante ne mooy Suhaybu daal di wax ba Suhaybu waxee loolu jékki-jékki mel ni mbir dafa jóge ci ci yàlla suñu borom ñu yàlla suñu borom daal def seen dëkk ba mu daal di tàng ba ñoom ñëpp daal di génn ci li nga xamante ne mooy seeni dëkkuwaay ci néeg ya dem ci li nga xamante ne mooy seen ron garab yooyu nga xamante ne moom lañu am ci fi nga xamante ne mooy seen dëkk boobu noonu waaye yàlla sun borom ndekete li mu jubloon ci loolu mooy bëgg ni nga xamante ne mooy waa dëkk ba bañ dajaloo ndax mbugal gi mu leen fas yéene mbugal gën a yomb ci moom waa dëkk ba génnee desul mag desul xale desul góor desul jigéen ñoom ñëpp génn nañ dem fi nga xamante ne mooy seen ron garab yi nga xamante ne moom la ñu am ba mu des ñi nga xamante ne ñooy nitu yi bi yàlla suñu borom mel ne ku dugal ab niir seen digganteeg jant bi ba mu commencé sedd ñu daan ne ah waa ñi nga xamante ne ñooy waa ay ka daan ne ah lii kat dafa mel ne xéewal la ndax dafa mel ni daf ñuy waaja tawal waaye ba ñuy wax loolu yàlla suñu borom def jékki-jékki ci kaw asamaan dafa jugee lu mel ne ay. jugg li nga xamante ne mooy safara ay tàkk-tàkk ak ànd ak ay dëll yoo xamante ne ay courant la ba ñoom ñi nga xamante ne ñooy waa ayka foofu noonu lañ mujjee jaare ñoom ñëpp ñàkk ñàkkee seeni bakkan ñàkkee fa dund yàlla suñu noonu la aragee ñi nga xamante ne mooy ñooy waa asxaabul ayka ba ñoom ñëpp fa lañ mujjee ñàkk ñi nga xamante ne mooy seeni bakkan kon bu ko defee mbokk yi ki nga xamante ne mooy yonente yàlla Shuayb alayhi salaam ñaari yónneem yëpp noonu la mujjee ñi nga xamante ne ñooy waa asxaabul ayka tamit noonu la kii di Shuayb bu mujjee ak ñoom kon mbokk yi bu ko defee xam naa fi la ñuy yem ak yéen di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa